ah champion bàyyi de, tëdd kii dafa jàpp confiance da nekk si téléphone am abu asef ñëw dooleel ko ngor ñaax machine na mun wala xajal de <laughs> ah kii kan la si campagne gars nak nag dañoo dal de ah garaam bañi kalmu mbir naka mu siyaar naa la waaye sant yàlla bu baax. yéen ngi ci bés bi. waaw ñu si wàccaay bi bi. yéen a ngi toog nii kalu. waaw ñuy kalu nii xam nga. ah ana ana sama sama poulain yi. Ah. comme mbiram mbir maak den. Ah. ah comme monsieur Maodo ren aren. ah nga rek pour tegaat na atale quoi. mbiram mbir maak den xam booyee sante. Ah, moo doon booyee boo. ok a na cooxaam ke mbéymeen. ah. na natele leya seede ke mbéymeen. lawino seede na seede na ma seede na Matia Mbagnick Beuz. non Mbagnick ka oh, Mbagnick ka jeg ñaxar ah. ke fap um dox nono ten leyne a faxanga wo o a gonanga wo ah. ah. Kami yaham la la yaham. So ma bari. Ala fam gala men. Ba ki jumla jom. Ogo. Mete koy jamu ñoma ci am 500. 3 millions ja mo 500. Temedo. Oui, som oi. Ah, non, non, da jangan mo chiong 50 Ah, mo No, afia ta afia ta No, se se sa ke et kala ko se sa. Jangan mo chiong 50 ngor nya ngor nya eh. Ah, wow. Me ke me ke. Ah, ah, ah eh, man ngi lay gaga. No ah, ngor ci am 100 mil. mo 3 millions. Hmm. Achi am Kaga dato. No, ka chiong 50 mil. ne jangi. Afa hanum eh. a bonanga a bonanum eh. ndiki nam waɗu fi fafaam a xaalise na fima ndeet ke cokan refe ɗat mais nak i ɓe ñananan ndam i fo utu defa ngoor ah. nda xa boyes a ndef wiin ah. faax a ndef wiin yaajo a ah. ga ngege japida sikana xam neke billa gaam nga pepale mi ga ndi eh. ama xirsam ngesen keke ɗato no ando naye fo fe um fiya ku refna teke stam keke mais hmm. <laughs> a ah, loola mañik ba lool mañik ba lool mañik mañik birga moom solli kiimatu mo solil ka comme comme nu nan ndefu nam nu mbaati combat ne entraînement ke tigo tig ken non a ɗoma moom a ɗoma neke waaw neke neke bo xaye neke neke an ah, yo lante kontak inga tu nege kontak nges na rom chahan nges sej nege la bo nege ah lanke ma to ges nege deti rom chahan nege mbok victoire fay rek ah. na je kana chunga inda anda sere fo po ci ni mhm. xey nege comme droit à l'erreur quoi na mhm. je ka an ne hay mhm. e eh, wondo meke rek wara ande sere fop Mhm. aɗa yiiga ngan a yiiga ngel fof aɗa anday ordinateur je ko mba hay wu refna wo ngoya o saha o saha kono hay ke warna in hay concentration i comme tubabo rek on est venu ici pour te mhm. faire mal on n'est pas le droit à kon nag dañoo war a concentré xam lu ñu waaj bàyyi si ginnaaw waaw suñu parents yi suñu rakk yi suñu doom yi a ngi toog stressé wu mhm. kenn talul lekk ba suuf kon nag ñu ñaan yàlla may ñu ndam ci barke Seyna Cheikh Sall mhm. ndax samay booy ñu baax la ñu xamal mhm. suñu grand yi nag ñoom Diallo ñoom Lamine mhm. ñëpp a ngi fi waaw ñoom Bukar waaw gars yëpp ñu fi daal ñu pare nañ lépp daal ah. waaw Abou Assef Abou Assef man mbëri di waleen introsé leen di noppal amuñu lu ñuy wax mais Abou Assef naka mu ziar nañ la nga jógee ba Palmarin ñëw dooleel ci sa gars yi waaw gis nga ah. rek samay grand moo am combat. waaw ak sama booy. ah xam nga mooy loolu quoi. waaw kon nga jàpp si. Mm. dañoo yàgg même bu dul combat sax dañoo yàgg nekk ñun ñëpp quoi. ok mais tey combat bu ñëwee day ñëw pour confirmer ko rek. Mm-hmm. di ñaan yàlla mu may ñu ndam incha mais entraînement yeeg contact yooyu yooyu Abou Assef jàpp na si wala. non mais li yëpp moo la gaañ xam nga ku waaj saison nawet. Mhm. ba léegi. Mhm. waaj drapeau CEDEAO. Mhm. Ah, ba ñëw ba fii kon combat bi nii moo tali la rek. waaw. amee li jarul waaj sa compétition bi yëpp def nañ ko ci mbapat bi. Ah. waaw ñëw moo tali rek incha allah. waaw tey tey loo looy conseil sa gars yi leen di wax ñu bëree combat bi. non combat bi moom. xanaa tey rek. comme loo xam ne da koy doog a def moom. Mhm. da tey rek. waaw ba gis buntu dem. affaire bi jeex ñu jubile. waaw waaw kon tout droit. waaw rang muy jubile. comme tey mooy ngénte coupe Sénégal bi moom. Ah. a bëggal gars ah, bi continué. voilà ah. continué ko ba ñaaxar. ba ñaaxar. ba mbeel ba fara bëggum. waaw ba ngaan ba ngaan ngayoo xem. <laughs> aussi nig bopp. réseau de Fatick yëpp kaw yëpp. voilà mi ngi noonu. Aja gaay kon mu bàyyi ngeen dalu ba ci kanam <laughs> eh ki ka la René René ja sek. borom palmaré René yaangi fi yow tamit ñew dolel gaay yi lu waral way bi ah gaa yi grand lañ waaw di leen wax daal ñu gën regroupement bala ci saal bi di seetaan match yi fan fanay football mbër siyaar naa leen de naka mu supporter yi kii laa yab bàyyi mu introsé ko grand naka mu lef jàmm mais mobilisation bi ak affaire yooyu noonu nan ngeen ko waajalee waaw gis nga waaye nañ ko vraiment. waaw ah. loolu suñu loolu suñu loolu fi mu vraiment xam nga rek fas yéene jàppale ko acca ah. ah. rafet na. gaa yaa ngi <laughs> ak dal. Modou. teg <laughs> ñu gis nga ni jaay da waaw demal si suuf nga gis demal ci rond-point ba nga gis demal ci euh, numtu ci pont ba fële nga xool dañ koy feesalee HLM ba biir kër sa dara du yomb yow xam nga ne tàkkusaan bu tey bi nag moo daal maa la wax waaw Lamine naka looy wax tey waaw tey xool bu sedd rek cent pour cent Ngor Niakh ordinateur boog fi ñuy regroupement fii mooy diwaan bi ah moom fii lañ nekk quoi waaw waaw gis nga ñu waajal hmm. bés bi rek waaw ah yàlla sutural ñu rek hmm. waaw ñu am ñaari ndam xam hmm. na rek mooy loolu ana wow, yi ñëw nañ gars yi waaw gars yi nañ waaw fan fan ak fan waaw ngaan ñaaxar waaw Mbelso Farabugum Gandiaye waaw gox goxaat yooyu yëpp gars yi ñoo ngi ñëw waaw waaw acca kon rafet na yëngal gësam rek. jaajëf waaw defal leen ci kanam. waaw. jëlal booy yi. 100 pour 100 ngóor ñaar. ah. Eh, wala boobu. Eh, <laughs> ah? Pierre. Pierre naka mu. Pierre Diaby. waaye non ça a baax xana stade xaye xana supporter ka ye a Sénégal yi Sénégal de <laughs> Véronique la tudd Véronique Maye Niass. Ah. ngi noonu. moo ngi góor ñaax moo di jigéen bu mun góor. waaw ngi waaw di wax. ndam rek ndam day am. ah. machine ne. tout droit. ah. waaw. te ñaari jël. ah. ñaan Nama sar frère de Ablaye sar Niakhar laay la pro. aca gaa yaay nii ba tey de yéen fan ngeen jóge. ah Niakhar wala fan. ngan ñëw yëngal si. ay pël sax ci biir Malick. ah. Jadi kaara ku kerma ma mene. champion ziar nañ la. delloo ziar yow. tey ngaa nga de. bi naka la man jiijak bu ordinateur. waaw ordinateur. nga ñëw jàpp si bés bi wala ngeen ngeen yàgg see jàpp ba tey jouru combat bi. waaw dañ est ce que mun ngeen ñëw ni ngeen waajalee combat bi mobilisation supporters yi ndax nañ bu wër. ndam rek hmm. Hmm. <laughs> ko na. amul problème tout droit. Ah, doo di laqatu ñëw leen nii. Ah. Ah. noo tudd. naka Yves. Jean Yves Le Drian. <laughs> Yves da ngay def stade. koy supporter. Ngor ñax ak ordi. Ah. yaa ngi leen di ñaanal ñu am ndam. loo bëgg Ngor ñaax. loo bëgg Ngor ñaax. sa tonton sa tonton moy beure tay <laughs> ah di nga dem stade ah, ah ja kon baax na ah koy ñaanal ah, mu am ah <laughs> macha allah tout droit c'est ordinateur ah champion bàyyi nii tëdd kii dafa jàpp confiance da nekk si téléphone abu asef ñëw dooleel ko ngoor ñaax machine na mun walaa xejal de <laughs> ah kii kan la si campagne gars yi nag dañoo ànd ak dal de ah garaam bañi kalmu ndóor mbir naka mu siyaar naa waaye sant yàlla bu baax. yéen a ngi ci bés bi. waaw ñu si wàccaay bi waaw ñu si wàccaay bi. yéen a ngi toog nii kalu. waaw ñuy kalu nii xam nga. ah ana ana sama sama poulain yi. Ah. comme mbir mbir maak den. Ah. ah comme monsieur Maodo yi aren ren. Ah. nga rek pour tegaat na atale quoi. mbir mbir maak den xam booyee sante. moo doon booyee bo. ok Fapum te yéen a na cooxamoo ne seede ke mbéymeen. ah. non mais seede na télé la yaa seede ke mbéymeen. lawino seede na ma seede na ma seede na ma seede na ma. non à part Madi Diallo de. <laughs> Matia Mbagnick Beuz. non Mbagnick ka oh, Mbagnick ka jeg ñaar. Ah. ke fap um dox nono ten leyne a faaxanga wo o ah. a ah. bonanga wo kaaɓe yaxam lana laaj yaxam ala fagum ka leyame a kijum laacom o ngog meke koy jangu njoma ciyam 500 a ciyong 3 millions jam a ciyam 500 temedo i som oy non nda a jangan yo ciyong 50 mille pames ah bon non a fiya a fiya tanga non 500 ke eh, et ka lay koy 500 jangan yo lay mo te ngor nya lay ngi am bata no eh. ah. ah, ah, eh, lay gaga a oh, mm. a fa hanum abona nga abona no ndiki na waɗu fi fa pa ma haalise na fima ndet ke jokan refe ɗat mais nak i ɓe ñananan ndam i fo utu defa ngoor nda xa boye sa def wiin fa xa def wiin yaajo ha ga ngege japina sikana xam nege billa gam ngana pepale mi ga ndi ama hirsam ngesen keke ɗato no ando naye fo fe um fiya ku refna teke stam keke mais a ah, loola Mbagnick Ba lool Mbagnick Ba lool Mbagnick Mbagnick birga moom solli kiimatu moom solil ka comme comme nu nan ndefu nam nu mba ci combat ne entraînement tigoo tig ken non a ɗoma moom a ɗoma neeke waaw neeke neeke bo xaye neeke neeke ah, an yo kontak i ngatunege kontak nges nayu rom caxan nges seej neke leyamo neke ah. lang ke maana to ges neke ɗeeti keen victoire fay rek ah. nda jeg kana cunga in ndax anda sereer fop owo ci'in mhm. xaye neke i njege comme droit à l'erreur quoi na mhm. jeg ka and xaye mhm. eh, o wondwanga meke rek a wara ande sereer fop Mhm. And yeega ngan a yeeganin fof a anda mhm. e ordinateur je ko mba hay ngu refna wo ngoya o saha o saha kono hay ke in hay mhm. concentration i comme tubabo hela rek on est venu ici pour te faire mal on n'est pas le droit à kon nag dañoo war concentré wu xam lu ñu waaj bàyyi si waaw suñu parents yi suñu rak yi suñu doom yi ñëpp a ngi toog stressé ba kon nag ñu ñaan yàlla may ñu ndam ci barke Seyna Cheikh Sall ndax samay booy ñu baax la ñu xamal suñu grand yi nag ñoom Diallo ñoom Lamine ñëpp a ngi fi waaw ñoom Bukar waaw gars yëpp ñu fi daal ñu pare nañ lépp daal waaw Abou Assef Abou Assef man mbëri di ma leen introduire dama leen di noppal amuñu lu ñuy wax mais Abou Assef naka mu ziar nañ la nga jógee ba Palmarin ñëw dooleel si sa gaa yi waa gis nga ah. rek samay grand moo am combat. waaw ak sama booy. ah xam nga mooy loolu quoi. waaw kon nga jàpp si. Mm. dañoo yàgg même bu dul combat sax dañoo yàgg a nekk ñun ñëpp quoi. ok mais tey combat bu ñëwee day ñëw pour confirmer ko rek. Mm-hmm. di ñaan yàlla mu ñu ndam mm-hmm. mais entraînement yeeg contact yooyu yooyu Abou Assef jàpp na si wala. non mais li yëpp moo tali la gaañ xam nga ku waaj saison nawet. Mm-hmm. ba léegi. waaj drapeau CEDEAO. ba ñëw ba fii kon combat bi nii mortel de la rek. Mhm. waaw. amel ni jaarul waaye sa compétition bi yëpp def nañ ko ci mbapat bi. Ah. waaw ñëw mortel rek mm. incha allah. waaw te tey loo looy conseil sa gars yi di wax ñu bëree combat bi. non combat bi moom. Mhm. xanaa tey rek. comme loo xam ne da koy doog a def moom. Mhm. da tey rek. waaw ba gis buntu dem. affaire bi jeex ñu jubile. waaw waaw kon tout droit. waaw rang muy jubile. comme bi moom. Ah. a bëggal ah, bi continué. voilà continué ko ba ñaaxar. ba ñaaxar. ba mbeel soob ba fara bëggum. waaw ba ngaan ba ngaan ngayoo xem. waaw <laughs> aussi nig réseau de Fatick yëpp kaw na yëpp. voilà ngi noonu. acca gars yi kon mu bàyyi leen ngeen dallu ba si kanam. <laughs> eh kii kan la René René Bodian Seck borom palmarin René yaa ngi fi yow tamit ñëw dooleel gaay yi lu waral teewaay bi ah gars yi waaw. waaw. Mm-hmm. di leen ndam.